dal leen ak jàmm mbokk internet yi ab jàngat ci diggante soxna Aida Diallo ak Serigne Saliou Thioune bu gël Tapée bu ñu sukkandikoo ci yenn borom xam-xam yi amal ab analise ci seen diggante ñoom ñaar ñu ngi xam la ne soxna Aida Diallo moom moo yor le pouvoir spirituel maanaam baatinu kuréelu cantaakoon ya kilée di Serigne Saliou Thioune bu Gueule Tapée moom moo yore le pouvoir temporel maanaam njiital jamono ja soxna Aida Diallo moo yore caggal guy ga ginnaaw si nga xamante ne bi ñu jógee ci màggalub Tuubaa gi lay weesu ba tey moom la ñuy wéy di dégg muy diir ab mbagg kilée di doomu jëwriñ ba woon sëriñ Saaliwu Cuun Gueule Tapée moom mi nga xamante ne lu ëpp ci kilifa murit yi dañu jàpp ne moom moo war a toog ci xilaafa ak baayam ji waaye li wérte wóor mooy waaye li wérte wóor mooy ba fi mu toll nii jamono jii nii dara leeragul donte xalif général de mourides wane na fu mu féetee moom mi xam la ne ginnaaw sëriñ Cheikh Béthio Thioune ki ko war a toogal ci fi nga xamante ne fa la toogoon mooy doomam bu góor bii di sëriñ Saaliwu Cuun Gueule Tapée xalif bi jàpp ne doomay donn baay doon nag moo a international di RFI jot na dut ab baaraama ci mbir mi ci waxtaan gu ñu amoon séq ko ak benn borom xam-xam buy wuyoo ci tuuru Jean-François Havard doon itam ab jàngalekat ci daara ju kawe ja l'université de Mulhouse ñu àndandoo déglu ana lan la borom xam-xam boobu jàngat ci mbir mi. Une femme peut-elle prendre la tête d'une confrérie musulmane? C'est la question qu'on va aborder ce soir avec vous, Fabien Nenberger. Bonsoir. Guillaume. Alors une question qui se centre d'une polémique d'ampleur nationale. Oui, c'est une histoire qui commence en mai dernier à la mort d'un chef musulman très charismatique au Sénégal. Il s'agit du cheikh Betio Thioun. C'est un marabout qui est à la tête d'un clan qu'on appelle les euh, Tiantakoun, un clan qui occupe une position un peu particulière, vous le verrez, mais qui se rattache officiellement à une des grandes confréries musulmanes du Sénégal, qu'on appelle les Mourides. Les Mourides, c'est succession à la tête du clan. Donc une succession qu'il avait anticipée puisqu'il a désigné une de ses femmes comme son successeur. Oui, sa troisième épouse, Sorna Aïda Diallo, femme de 40 ans, euh, dont le goût pour les habits et les accessoires de luxe est souvent mis en avant par la presse sénégalaise pour la petite histoire. Et eh bien effectivement, avant de mourir, le cher Betty O'Tune avait fait d'elle une guide universelle, un adoubement qui explique pourquoi cette femme d'extraction modeste, hein, détracteurs bien, euh, affirme aujourd'hui qu'elle est chère à la place de son mari défunt. Oui, mais Fabien, cette succession est contestée. oui, le calife général des Mourides est intervenu pour s'opposer à cette succession et désigner Saliou Thioun, le fils aîné du défunt, comme étant l'héritier légitime chez ses euh, Tiantakoun. Et alors, on en où Il a réussi Alors, la partie n'est pas terminée et la presse sénégalaise scrute avidement euh, les signes de, victoire de l'un ou de l'autre. appelle le, le gamou au Sénégal et chaque camp eh bien, a célébré de son côté. Euh, Fabien, pour comprendre ce qui se joue autour de cette succession, ou plutôt cette tentative de succession euh, féminine dans une confrérie sénégalaise, vous avez trouvé un spécialiste, c'est ça Oui, j'en ai trouvé un. Jean-François Havard. Euh, il est maître de conférences en sciences politiques. Il enseigne à Mulhouse, à l'université de Haute-Alsace. Il s'intéresse au mouvement générationnel au Sénégal, religieux, donc les Tiantakoun, dans le cadre d'un islam sénégalais qui est très marqué par les confréries soufis et notamment celle des Mourides. Les confréries, et particulièrement la confrérie mouride, sont des structures centralisées, hiérarchisées, disciplinées, euh, ce qui n'empêche pas une certaine pluralisation à l'intérieur des confréries. C'est-à-dire qu'il y a euh, toujours eu des mouvements un petit peu euh, hétérodoxes, parfois qualifiés de déviants, et c'est le cas notamment de ce mouvement des qui est le mouvement des disciples d'un marabout qui s'appelle Sherbetiotun,

Oui, ils sont nombreux. Alors, très longtemps, le Cher a revendiqué plusieurs millions de disciples, ce qui est sans doute très exagéré, mais on peut estimer qu'ils sont à des degrés variables, plusieurs dizaines ou centaines de milliers, effectivement. Revenons-en au centre du sujet. Betiotion, donc le cheikh décédé au mois de mai dernier, avait fait, avant son décès de sa femme, le guide universel. Je crois qu'il y a un terme spécifique en Wolof qui le désigne. Est-ce que c'est un cas unique au Sénégal, comme ça, cette espèce de transmission de pouvoir religieux entre époux effectivement, donc au Sénégal, c'est quelque chose de complètement nouveau. Donc il l'avait désigné euh, sous le terme de diaoring universel, c'est le terme consacré, en utilisant des formules qui ont un sens profond dans la culture mouride, puisqu'il lui disait euh, finalement que je suis toi, tu es moi, ce qui est bien compris par les mourides comme euh, le fait que euh, cette épouse, en l'occurrence sa troisième épouse, Sorna Aïda Diallo, était en quelque sorte de la même dimension spirituelle que lui. Et reconnue par les disciples comme une forme de transmission euh, de son charisme à, à son épouse. Les conséquences pratiques, est-ce que c'est surtout honorifique On en a fait une sorte de présidente d'honneur Ou bien est-ce qu'il y a vraiment un pouvoir religieux avec une autorité religieuse qui y est associée, qui a été transmise de cette manière ce n'est pas que symbolique. Euh, ce qu'il y a derrière, c'est l'ordre des allégeances entre les disciples et le guide. Là, en l'occurrence, euh, cette épouse qui serait donc Diaorine universelle. C'est-à-dire qu'au décès du Cher, les disciples sont invités à reformuler leur acte d'allégeance, ce qu'on appelle le Jeblu, donc le, le, leur acte de soumission, le fait de prononcer cet acte de soumission euh, à l'égard de l'un ou l'autre, en l'occurrence cette épouse ou son fils, ça aussi donc euh, tout un circuit économique de circulation des dons qu'on fait à son marabout, de rapports de soumission qui vont se manifester à l'occasion de manifestations religieuses par exemple. Donc le chef est décédé au mois de mai. Est-ce qu'on sait comment ont réagi euh, les membres du clan Tiantakun depuis D'emblée, il y a eu euh, quelques hésitations euh, après la mort du Cher. Euh, il y a ceux qui, euh, d'emblée, se sont reconnus dans son fils aîné, donc suivant cela, donc une logique qui est celle de la confrérie, à savoir de la transmission euh, de père en fils euh, dans un ordre d'évêque. mais il y a quand même un groupe de Chantacoon, une partie des Chantacoon, c'est difficile d'évaluer le nombre, qui ont euh, d'emblée savoir qu'ils souhaitaient suivre cette épouse qui était, semble-t-il, la, la, préférée du Cher ou qui bénéficiait d'une certaine aura par l'attention que lui prêtait le Cher. Mais tout ça, ça s'est euh, aussi euh, au moment de son décès à euh, la question savoir où devait être enterré le Cher. anciens avaient formulé euh, le fait qu'ils souhaitaient être enterrés dans un village à côté de Mbourg qui s'appelle Atul Salam. Et le radif général, à l'époque, avait clairement signifié que Sherbet devait être enterré à Touba. Et euh, dans le même mouvement, il avait affirmé que le seul successeur légitime à Sherbet devait être son fils. Touba, il faut le préciser, c'est le du pouvoir mouride. oui. euh, pour le dire simplement, c'est la ville sainte des Mourides. C'est une ville qui euh, tient un statut particulier au Sénégal. Le cœur de la ville appartient au Ralif et la ville de Touba donc fonctionne comme un espace même d'extraterritorialité de fait à l'intérieur du Sénégal. C'est un peu le Vatican des Mourides si on osait la comparaison avec euh, Rome. Euh. Si on osait une comparaison rapide, effectivement, on pourrait penser au Vatican. Pour en revenir à la question de la succession donc du chèque Betty O'Tune, il semble que la controverse publique et je dirais même nationale, en juger par les médias du pays, ait commencé au moment où des images ont circulé montrant la veuve Sorna Aïda Diallo dans des habits religieux célébrant des mariages, effectuant également des entre guillemets baptêmes, mais que ce soit ces images-là d'incarnation évidemment concrète du pouvoir qui ait créé la controverse. il y a eu une vidéo euh, virale, effectivement, donc euh, montrant euh, Sornaïda Diallo avec un, bébé dans les mains et semblant célébrer un baptême. Elle-même donc a réfuté le fait d'avoir célébré des baptêmes. Il faut bien comprendre que euh, on touche là à une spécificité qui a longtemps été décriée euh, des gens notamment à la presse de Cherbetiotune, c'est qu'ils se distinguaient justement par le fait de célébrer des mariages, de célébrer des baptêmes exactement, semble-t-il, l'orthodoxie islamique. Et le fait d'indexer Sornaï Diallo comme ayant elle-même célébré des baptêmes, c'est une façon d'enfoncer le clou sur cette forme de dérive par rapport à, à une orthodoxie euh, islamique. Par rapport à la controverse, est-ce qu'il faut imaginer que dans le fond s'opposent deux logiques différentes Une logique qui serait peut-être une logique, on va dire, orthodoxe, sous-entendu, une femme ne succède pas à un homme à la tête d'un clan, d'une confrérie euh, soufie, d'une logique mystique que pourraient suivre d'autres, qui ferait confiance dans le fond à l'inspiration divine du de y compris parmi les femmes, son successeur je crois qu'il y, y, a surtout euh, deux plans d'appréhension de cette question. Sur le plan religieux, il y a une confusion qui est faite entre euh, le statut de cher et d'imam. Euh, dans les textes de l'islam, il y a un certain nombre de hadiths qui porterait à euh, expliquer que c'est à l'homme qu'il revient de diriger la prière, de diriger la communauté, à la différence du statut de cher, qui lui n'est pas défini strictement en islam, et a fortiori donc le statut de shera, de femme chère. Donc là, il y a déjà un premier plan euh, religieux. Le deuxième plan, c'est plus important pour comprendre ce qui se passe euh, au sein de la confrérie c'est que Cher Tune, encore une fois, a toujours été euh, indexé, y compris au sein de la confrérie, comme étant en quelque sorte déviant par rapport à l'orthodoxie. Et Cher Tune était quand même protégé par le fait d'avoir été désigné comme Cher par un radix très respecté. Donc de son vivant, on ne pouvait pas faire grand-chose, en quelque sorte, euh, pour, le faire rentrer dans le rang. Et donc là, très clairement, il y a une reprise en main de la confrérie

vos aspirations de Sornaïda Diallo, il y a la question de la place de la femme qui est en jeu, bien sûr. Mais il y a aussi une façon de vouloir réaffirmer un, un ordre, une logique confrérie qui veut que ce soit le fils aîné qui reprenne la direction du rallyfard. Si cette polémique a pris une tournure vraiment nationale et a enflé de cette manière, est-ce que c'est lié également aux spécificités du Sénégal, où euh, les femmes ont occupé ou occupent des postes notamment politiques de haut plan Il y a eu des femmes premiers ministres. Est-ce que le contexte sénégalais explique en partie l'ampleur de cette polémique on est quand même sur deux ordres complètement différents. Du côté de la confrérie Mouride, qui il n'a été donné à ce jour euh, à aucune femme d'avoir un rôle de direction. Hier avait lieu la fête du Gamou, c'est comme ça que s'appelle la fête du prophète au Sénégal. Est-ce qu'elle a été, avec toutes les festivités, l'aspect représentation hein, qu'elle comporte, un moment de médiation entre les différentes logiques Sorna Aïda Diallo, la veuve, a trouvé une place dans l'organigramme Tiantakoun finalement une stratégie d'apaisement pour l'instant, donc qui a été euh, adoptée Symboliquement, Sœur Naïda Diallo donc, a fait un certain nombre de dons au Ralif Général à l'occasion de ce gamou. Elle lui a offert des bœufs, comme euh, le faisait euh, ce cher Bétiotune avant elle. Et de son côté, Saliotiun, donc le fils aîné, lui a tendu aussi la main avec l'idée de ne pas diviser l'héritage de son père. Parce que même si il est soutenu par le Ralif Général, il a bien conscience de la nécessité de maintenir l'ordre de gouvernance qui de se mettre en place, selon vous non, non, non, il n'y aura pas de gouvernance à deux têtes. qui peut se jouer de façon complexe, alors en fonction de la place que Sornaïda Diallo donc, parviendra à, se créer, peut-être quand la polémique se sera apaisée, ce sera de reprendre une distinction qui a été faite même par euh, qui a toujours revendiqué d'être le seul cher authentique de la Mouridia, en ce sens que euh, tous les descendants du fondateur de la confrérie n'étaient que des descendants, alors que lui avait été fait véritablement cher. Et à ce titre, euh, Charbet avait l'habitude de distinguer un ralifat temporel, qui était celui donc du ralif, et un ralifat spirituel qui lui revenait. demander si au sein des Chantakun, il ne va pas y avoir cette sorte de partage qui va réapparaître avec euh, son fils, qui, aux yeux des partisans de Son Aïda, incarnerait le califat temporel des Chantakun, alors waaye boobu ba tey li ñu seetlu mooy ne lu ëpp ca cantaakun ya soxna Aïda Diallo la àndal li ko firndeel di mbooloo mu bari mu takku mi ànd ak moom tey teew ci jotaay yi nga xamante ne da koy jot di amal siiwaayam doxalindam ak kilifteefam dafay gën di yokk saysu ne moom soxna Aïda Diallo lu mënti xew dooleem mi ngi yokk saysu ne looloo waral ñu samp ab laaj bu jëm ci wàllum njiital cantaakun yi di wax rek ne ana kan ci ñoom ñaar dëgg-dëgg moom moo yor bi nga xamante ne moom mooy jiite jamono ji kuréelu cantakun yi nañu àndandoo déglu li nga xamante ne moom la ñenn ci borom xam-xam yi mel ni Ibrahima Faye nekk ab njàngalekat amal ab njàngat ci mbir mi ñu àndandoo déglu ko. waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu waaw maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak ci santam di nuyu mbokk jullit yëpp moo umma islamique bi fépp waaye nekk maa ngi lay nuyu waaw di la nuyu di la sant ca di la ñaanal nga yàgg fu ci wér di ñaanal xalifa général bi sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa bi sëriñ Tuuba yàlla na fi yàgg lool ci ànd ak wér waaw ma bëggoon a indi nag sama xalaat tuuti mbokk yi ci li nga xamante ni mooy coowul réew mi jëmale ko ci yoonu murit pare ñu jaarale ko ci kër Cheikh Béthio maanaam su ma waxee loolu mbiri soxna si moom laay wax directement ni moo ma tax di wax waaw ni ma ciy waxee nag mooy dafa am ñu bari ñoo xamante ni dañoo nekk ay jullit ca xaj na dañoo desee xam sax comprendre sax ñoom diina ji ñu nekk ban diine la ak diina ji lan moo ko tax a jóg ak diina ji lan moo ko lan mooy lan mooy rôlam ci am ñu bëri ñoo xam dañ koo comprendre ci nit ki balaa mën a nekk dafay xam li mu nekk d'abord day xam lan la mu door koo mën a jariñoo rawatina nag suma mbokk murit yi nga xam ne ñu ci bëree bëri tamit dañoo doon murit waaye xamuñu muridisme ci li mu ko may xam leen ne nag lislaam yoonu jëm ci yàlla la te ñëpp ko bokk base bi di sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne képp koo xam ne da nga cee bokk sorul mooy def lu baax di wax lu baax tey am yaakaar ci yàlla suñu boroom ndax loolu moom moo fi nekk ndax keroog ngay xam ne yow mii kat dara nga mooy bu ëllëgee bu saa taxawee. li nga xamante ne nag mooy euh, man mbiru Cheikh Béthio euh, li nga xam ne moo ci sama xalaat mooy koo xamante ne doomi Sëñ Tuubaa moo ko gërëm kooku moo ko njabootam man amu ci lenn loo xamante ne lu mu leen di yàq la waaye Sénégal dañuy xool dëgg gi ba mu leer na ni lii dëgg la ñu bëgg ko faa bàyyi di xool leneen te am na ci loo xamante ne nag yàqkat yi yàq nga xamante ne dañuy yàq te seen i yàq dara taxul leen a jóg loolu seen intérêt man nag mbiru soxna si ni ma ko jàngate ak ni ma ko gisee mooy liggéeyal seen Tuubaa moom amul góor amul jigéen kenn ku nekk am nga pas-pas bi moo am solo kenn ku nekk am nga droit nga def ko kon liggéeyal sëñ Touba bu ñu ko jël bëgg koo bëgg koo féetale ak euh, naan charia lii ak laa ndax sëñ Touba dafa dafa transcender charia waaw non seulement dafa transcender charia sax waaye il est possesseur de la charia kon am na foo xamante ni bu ñu fa xoolee juum mbaa du ñu jariñu ci sëñ bi ndax sëñ bi aw bi xubbil la wax aw xëddiyaati mooy ki nga xamante ni daf may jox addiya ak ki may liggéeyal du ñu mës a yem ak ki nga xamante ne du ko def kon foofu identification ba yaakaar naa ne nekkul góor ak jigéen. mooy tuubaale habdin muridin saadin loo moom bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati ki may liggéeyal di ma jox ñàkkam ak ki may jox addiya kooku du ñu yem kon nag loolu il faut ñu xam ko da ci am ay kilifay mbàkke mbàkke yoo xamante ne nag ñoom dañoo jug di yàq rek ngir seen propre intérêt personnel loolu dëgg fa yàlla mu nekk loo xamante ne man rafetluwu ma ko ndax ku mel ni Cheikh Béthio Thioune yaakaar naa ni Serigne Touba Serigne saalu Mbacke moo ko defal li mu yor muy koo xamante ne il a travaillé pendant toute sa vie pour l'œuvre de Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rassoul basé sur le mouridisme mooy taalibe ku ko xam ci lool nga ko xam muy liggéey boo xamante ne wax dëgg fa yàlla liggéey bu rafet la ku koy bëgg a yàq it yàqu man mii di wax ak yéen nii yàlla mi ma tiim xam na ni nekkuma disciple cantaa man naa ni fa ma bokk mooy waa kër Serigne Souhaïbou doomi Serigne Souhaïbou mooy sama wasila la waaye maa ngi leen di seereel ni la dama yaakaar ne nit ki su fekkente ne dafa nekk nit ku baax dafa war a bëgg lépp lu baax nit ki su fekkente ne da ngaa baax doo baax Tuuba dem Ndakaaru di fa bon maa ngi bon Ndakaaru dem Cees bëgg faa baax man loolu xamuma ko nit ki booy baax da ngay baax universel ndax Sëñ Tuubaa bañ ko laajee fu sa territoire yem li mu wax mooy fu mbindeef yem fa la sama territoire yem kon dañoo war a bëggante di defarante te bañ a yàqante ndax coow li ñuy gis ci umma islamique bi wax dëgg fa yàlla gis ñu ko ci yeneen diine yi kon nag am na ci loo xamante ni day wone rek ak naafiq ak saytaane gu nekk ci biir ak kenn ku nekk di sa nguuru bopp te xam ne nguur gu nguur yàlla gi amul solo kon nañ leen jéem a juboo tey defarante tey rafetal ndax am na loo xam ne gàcce la kenn dégg ko ci kon nañu liggéey te bàyyi coow la te bàyyi yàqaate bi wax ji nga xamante ni yàq goo xamante ni yàq gu la neex la nii rek nga bëgg a yàq nit ki bëgg a yàq doomi jàmbur loolu amul benn solo man dajee soxna Ayda awma ci dara loo xamante ni lu ma ciy contre la ndax dajewuñu di tux dajewuñu di naan dajewuñu di tux yàmbaa col gu yiw la ñuy sol di lekk ak naan di jàng xasida am na ñu fi ñu fi nekk ñoo xam ne ay juddu lañ di ay promoteur di organiser fii ci grand théâtre bi ndaje yoo xamante ne neexul yàlla duñ fa tudd yàlla duñ fa tudd yeneen bi duñ fa tudd sëñ Tuubaa col gu bon la ñuy solu di fa naan sàngara di fa tux di fa def lu bon ah te loolu kenn waxu ko kon nag am na ci loo xamante nii kenn xamul lan lay nuru bàyyi leen lii ngeen di def te xam ne liggéeyal sëñ leneen la liggéeyal sëñ Tuubaa fañ koy xool ak fa mu nekk du benn. kuy liggéeyal suñ tubaa fi ngay njëkk a tàmbalee mooy di defar nit te bañ koo yàq kon nañ leen bëggante yéenante jàmm te bàyyi boddakonte bi ak yàqante gi ci réew mi wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu